njàng mi ak njàngale bi dooraat na naam ci ndorteel ba le 25 taw bi xawoon na jaxase mbir mi tuuti mais nag euh, malgré taw bi amoon nañ euh, taux de participation bu am solo de reprise bu am solo maanaam xale yi ak jàngalekat ci teew nañ surtout ci euh, daara tout tànk yi élémentaire bi demoon nañ bi jot ay taux de quatre 86 pour cent n'est-ce pas ci enseignants yi ak ak élèves yi. taux yi gënoon faible ci moyen bi ak elem euh, ak euh, secondaire bi lañ ko nemmeeku woon e te même foofu sax xawoon na tane parce que demoon nañ ba euh, un taux de environ quarante et quelques pour cent quarante quatre pour cent te taw bi donc terewul xale yi ñëw parce que foofu jàngalekat yi ñëwoon nañ ndongo yi ñoo ñoo ñëwul. ñu koy rafetlu bu baax nag parce que gis nañ ne ca ëllëg sa ñëpp dooraat nañ donc njàng mi ak njàng mi taux bi dem na ba à un Euh, qui variait entre quatre-vingt et quatre-vingt-dix-huit pour cent maanaam lim euh, téeméeri ndongo yooyu jël juróom-ñeent fukki ñëwoon nañ euh, téeméeri jàngalekat yooyu ñëw juróom-ñeent fukki ak juróom-ñett yi teewoon nañ donc fi ma leen di wax nii vraiment njàng mi ak njàngal mi dóor na ci daara yi formation yi ak jàngale yi ci région Ziguinchor lépp. yenn daara yi mel ni CEMS encadré loolu bettul ñu parce ñun. biñ ne njàng mi day ak njàngal day dooraat ci nawet bi xam nañ ne ku ne nawet fii ci Casamance wax taw moo tax def nañ cartographie zone inondable yëpp maanaam fépp foo xamante ne école mu ngi foofu te muy faral di taa xam nañu ko liñ ci wax mooy euh, fi nga xamante day taa ñu ngi ñu ngi ñu ngi koy ñu ngi koy surveiller bu baax su demee be ndox mi commencé taa liñ njëkk a euh, li ñuy njëkk def en rapport avec le service d'hygiène et les sapeurs pompiers mooy pomper dispositif de pompage bi pare noppi na suñ demee ba pompage bi nag ndox mi ëpp ñu doole ba pompage bi mënalul tax ñu génnee ndox mi ci établissement bi am nañ un plan de délocalisation dañ ko dañuy jël classe yi rek yóbbu leen ci classe yi gën a jege yoo xamante ne amuñu amuñu ndox loolu foofu lañ ci toog am li mu jàngalekat yu bëri yoo xamante ne dañu feebar pas feebar mbas mi mais ay maladie chronique la ñu amee maanaam lu mel ni jabet wala ay euh, hypertension artérielle wala lu ñuy demee te kilifa yi yor euh, euh, mbiru wér-gu-yaram dañ ne képp ku am xeetu jàngar yooyu waroo delluwaat école ba tax na am na ci ay lycée yoo xamante ne ci yenn discipline yi dañ am ay ay manque maanaam amul ay el ay njàngalekat yu yu doy pour jël ko en charge mais loolu saafaral nañ ko parce que loolu ñu ngi ko doon xaarandi liñ ciy def mooy dañuy négocier ak yeneen professeurs yu nekk yeneen école ñu nangoo di jàngale ci ñaari écoles yi mooy naa des mesures d'accompagnement maanaam dañ leen dafa am xeeti jàppale bi ñu leen di jàppale pour ñu maanaam euh, di jàngale ci ñaari euh, école yi. am nañ ko ci ñetti lycée euh, noonu lañ ko saafaraalee et pour le moment vraiment ñu ngi sant yàlla njàng meek njàngale muy kon wéy ci seen ci établissement yooyu.